le maire Khalifa Ababacar Sall nekk kilifa ci réew mi nekk ku ñu xam nekk yi tamit ku am jaar-jaar ci wàllu politique ñu téye woon ko jege na léegi ñetti at président Macky Sall profito ci moment yooyu yaakaar naa ne moment mënul woon a gën a baax moment bi mu ko defee. am si mooy ñu raaf li nga xam ne lépp jiiñ nañ ko Karim Wade ne moo ko def te yoon tëj ko ci wala ñu raaf li nga xam ne yépp jiiñ nañ ko. Khalifa babakarsal Sall te yon deugal ko ah loolu nak dafa mel assemblée nationale donc moko meuna moko a def té ñu japp né amnistie duñu ñu amnistie ay nit ay fait lañuy amnistier du caagi nit ki lañuy amnistier nit ki moom boko ko grâce ba mu ci ci ci la waron ci mom def ko fait nak lañuy wax amnistie ah mbir mi man liñ ci bëggu rek ñun mooy bu ko kenn def préalable maanaam bala maa waxtaan daal dañoo nistier diw wala bala ñoo waxtaan dañu amnistier diw dama jàpp ne loolu moom bu ñu ko commencé def rek ña ngay bëgg a def mbirum politique politicien waaye nag ku mu neex te ñun loolu lañu bëgg nga ñëw ci taabalu dialogue bi moo tax ñuy lancer appel euh, parti yi nga xam ne yépp Euh, ñëwuñu ci discussion yi ñëwuñu ci dialogue bi parti yépp ñu ñëw si dialogue bi bu ñu ñëwee si dialogue bi nga xam ne président Macky Sall moo ko initié dialogue moom mënoo ko initié ba pare ne man lu ma neex dong laa fay dégg ñoom bu ñu amee ay revendication wala bu ñu amee ay problème ñu bëgg a posé ñu ñëw posé ko ci dialogue bi buñ ko ca posé bu boobaa daañ leen mën a tontu te gëm naa ne bu ñu defee ndànk bañ a jiital politique bañ a jiital politique politicienne jiital tekk jiital tay amul raison pour que problème yi ñuy poser ñu mën am ñu mën am solution